bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xadaa'ina raxmatika yaa arxama arraaximiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasalam ñoo ngi amaan mbekte ci dellu siwaat ak yéen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 soppee baax yi nekk ci biir réew mi ak soppee baax yi nekk bitim réew di leen nuyu bu baax a baax di nuyu gur groupe whatsapp bi baax yi di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp baax topp jéem a jëfe yi nga xam ne ñu ngi ko fiy dégg ndax loolu daa bokk ci njariñul waxtaan yi bi may waxtaan ba ñëw ci sadaxa ya te mooy sarax boo xam ne dafay des di jariñ nit ba ba àdduna di tukki ma tuddoon ca lu mel ne gas ab teen nga xam ne yiw wa ca nekk daa bari boo xoolee ci lusik ci kaw nii rek dangay gis ne gas ab teen ba aw nit man caa naan boo ko doon natt ci humanité rek dangay gis ne jëf ju rëy la boo ko yóbboo ci jaamu yàlla mu gën a rëyati waaye bi ma ko waxee diggante boobaak léegi lu mat ñeenti nit gas nañ ci lu man ñeenti teen ci ay dëkk yu wuute yoo xam ne ñi ngi dégg jotaay bi ñañ ko defal ñi ko def itam ñi ngi dégg jotaay bi ànd ak ñun waaye ñi ëpp ci ñoom liñ doon waxtaane te mooy al ixlaas te mooy sellal dañoo bokk ci ñi gëm ne daa bokk ci li tax liy tax jëf nangu mooy ki jëf-jëf ji nëbb ko ndax yonent bi nee na daa bokk ci njariñul sarax mooy sarax bi ngay joxe nga nëbb ko ba sa loxoob càmmoñ bi sax du yëgle ndoxam ndeyjoor bi di joxe te moo ne ba démb rek am na ñu may wax ne ma dañoo bëgg gasal ay nit teen waaye biñ koy wax fekk na awma ñu soxla teen ala kulaalin yal na yàlla fay leen waajaloon naa ko sax ci waxtaanu démb wi waaye mu woon am ndax ay yitte di wax ne sadaxa ya xëy na dañ koo tudd ci wàllu gas teen waaye benn la ci waaye yu bari yoo xam ne nit mën na koo def mu des fi di jariñ nit ngi tàmbulee ci bind ab téere boo ko mënut nga jàppale nit ba mu bind ko xam-xam boobu des fi mi ngi tàmbule mi ngi bokk ci loolu tabax daara wala école wala yi nga xam ne moo ci aju ay bunt yu bari la yoo xamante ne danañ ci ñëw ci fajari samedi yi waxtaane lu jëm ci wàllu sarax ak yi nga xam ne moo ci aju yal yàlla fay leen yal na yàlla def lépp seen téere jëf soxna Ndeye faatu Dieng euh, foofu ci Sonde Captas sëñ Modou Mar fële ca Amérique madame Touré ak euh, docteur toure ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yal na yàlla fay leen yal na yàlla barkeelal leen euh, barkeelal mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel suñu jotaay bii di baax di nuyu bu baax docteur Ana Dia di nuyu maam Kiné caam mi tudde woon jotaay bi mos baax yal nañ baax ñun ñëpp. sama jenn maam je maam Ramatulaay Baaji moom sax yaay la waaye léeg maam gi damay gënal maa ngi koy nuyuwaale bu baax a baax tey ñaan suñu borom yërëm e, suñu jur wa nga xam ne moo jiitu di siyaare bu baax njabootu suñu yaay soxna mu Munina Kunta gépp xam naa li muy fajaru dimanche tax ma xaw a yàgg ci nuyoo yi waaye maa ngi leen koy jéglu bu baax ne dama koy tàmbali te tax ma matal ndax soppe yeek am di jàmm yi bu waxtaanu fajaru dimanche jeexee ndax léeg-léeg numéro nekk ci daanaka dimanche ji yëpp wuyu téléphone la ñuy yendoo te du tax ñu matal yal na yàlla boole ñu dimbali. fajaru dimaas liñ ci daan waxtaane mooy lu jëm ci wàllu ñaan lu jëm ci wàllu ñaan tey nag bala maa ñëw ci ñaan gu ñu joxe ne gu baax la dañuy jéem a waxtaane ñaan ci boppam ñaan ci boppam buñ demee di ko xool mooy lan nga xam ne baat bi boo ko doon wax mooy duwaa duwaa mooy baatu ñaan nga xam ne day tegtale tegtal yu bari yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko ciy indi dañuy wax ne allati tadullu fi l asli ala imalati cheyin ilayka bi sawtin wa kalaamin yakunu minka baat lay doon boo xam ne day tegtale mbir moo xam ne day jéng jëm ca di wax joo xamante ne nit ki da koy wax ci aw euh, làmmiñam biñ demee ci cosaan la dañuy wax ne bu dee cosaanul ñaan ci boppam ci maanaa lañ cay dégge mooy raxbati ilallahi azza wa jalla mooy xemmeem gi nga xam ne moom la nit ki di xemmeem boroomam subhaanahu wa taala wa huwa wa loolu day bokk ci woote gi nga xam ne moom la koy woo loolu tax muy woo boroomam moo tax boo demee ci alquranul karim am na fu muy wax naan wa daaiyan ilallahi bi idnihi wa siraajan munira yàlla nee na ñiy woot yonent bi alayhi salaatu wasalaam day woote waaye nag ci ndigalam wa daaiyan baat ba foofu woote la ci jublu maana daaiyan ila tawxidillahi wa maa yuxarribu minhu day woote jëme nit ñi ci ñu wéetal yàlla ak yi nga xamante ne moom la àndal kon loolu mooy ñaan ñaan mooy duaa buñ waxee ne duaat duaat duaatun xawmun yaduuna ila bayhati hudan aw dalalatin duaat buñ ko waxee aw nit lañ ñoo xam ne dañuy woote jëme nit ñi ci njub wala muy nit ñoo xam ne dañuy woote jëme nit ñi ci ak réer waaye ay wootekat la doon mooy waaraatekat yeeg boroom xam-xam yi nga xam ne mm, yaa ngi dégg ñu naan daawa ñene ci biir daawa ba di ko jëfe ñooñ ñooy duaat yi waaxidun daain wa rajulu daaiya ida kaana yadu nnaasa eh, yadu nnaasa ila bidatin aw diin kon ñaan day tegtale ab woote day tegtale ab woote day wax ne waxat yustaamalu adduaau fi na tasmiya nee na léeg baatu ñaan wala baatu woote boobu di duaa dañ koy jëmee ci baatu tur tur mu mel ne tudd dara mel ne ku doon wax sama doom ji ci arab bu doon wax danaan daawtu ibni zeydan maanaam sama doom ji maa ngi koy wooyee zeyd te bisub tudd la ñu ne ko nooy tudde sa doom ji mu ne maa ngi koy tudde zeyd te lam ci jublu rek mooy sàmmaytuhoo tudde naa ko tudde naa ko am ñuy wax ni ñaan baat bi buñ ko waxee mooy laaj borom bi subhanahu wa taala maanaam laaj ko dara sàkku ci moom dara daawtullaha ida saxaltahu wa isa stayqastahu maanaam booy sàkku dara ci sa borom la ngay jëfandikoo loolu mooy ñaan booy sàkkoo làqutu ci moom la ngay jëfandikoo yit ñu ne loolu mooy ñaan loolu alxuraanu karim wax na ba muy nettali diggante yonent yàlla Muusa ak waa banu Israil mu ne qaalu adu lana hmm, dañ ko wax ne ko Muusa wool ñu sa borom loolu mooy laajal ñu sa borom laajal ñu sa borom lañ jubluwoon ñoom ci loolu salhu eh, laajal ñu sa boroom amma duaau ila cheyin fa huwa alxassu ala qasdihi maanaam woote gi solos woote gi mooy baat yi nga xam ne moo ca topp ca woote ci lan lay woote mooy solos ñaan gi yàlla day wax ne wallahu yad'u ila daari salaam ila daari salaam suñ borom mi ngi leen di woo fan la leen di jëme mooy ca këru jàmm ga te mooy aljanna nga xam ne baatu daawa foofu day mel ne baatu woote lay taxawe danaa ci ñëw ci yeneen déggin yi nga xam ne boroom xam-xam yi am nañ ko ci boo demee ci alxuraan ci baatu daawa ba tey dangay fekk muy wax ne wa axiri daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin ñoom day mujjantalu seenu woote seenu ñaan mooy ñi ngi sant yàlla nga xam ne daawa fa hiya al waxida wa jamcuha dacwaatun dacwaatun wa yutlaqu aydan ala nafaasati alqadri kama fi xawlihi taala laysa lahu dacwatun fi dunya wala fi alaxira nga xam ne kon mooy woo borom bi subhaanahu wa taala woote gi ngay woote mooy tolloo ñaan dinaa ñëw feneen foo xam ne dañuy wane ne ñaan ak woote bokkuñu ñoom danañ indi lan moo leen wuutale ci wàllu ñaan ba tey boo ñëwee ci istilaax bi maanaam niñ ko jubluwaay bi li nga xam ne moom lañ ci bëgg a wax euh, atibbiyu boroom xam-xam la dafa wax ne izhaaru xaayati tazallul tasalluli wal iftixaari ilallahi wal istikaanati lahu nee na ñaan li muy tegtale du dara buñ ko waxee liñ ci jublu mooy néew doole ñàkk pexe soxlawoo goo xam ne jaam bi da koy soxla boroomam looloo tax ñuy wax ne ñaan la loolooy ñaan ñaan buñ la nee luñ waaw ñaan mooy lan danga naan mooy néew doole gi dal nit ñàkk gi nga xam ne moo ko dal ak ñàkk pexe gi mu jël yaakaaram wékk ko ci boroomam loolu mooy jubluwaayu ñaan gi munaawi beneen boroom xam-xam la dafa wax ne huwa lisaanul iftixaari bi char'il ittiraari nee na mooy làmmiñu ki nga xam ne dafa aajowoo dafa am soxla dafa am soxla woo gi muy woo waaye nag te fekk ne dafa ñàkk pexe maanaam amut keneen kum ko jooytu ku borom bi wala xam na ne borom bi mooy aji maye ji mu janow moom di ko jooytu loolu mooy ñaan am ñu wax ne huwa shafiul xaajati wa nuxjuha billa jaajati am ñu wax ne huwa talabu kasfil xumma bi tatalloxi mawdihil xisma yooyu yëpp déggin la yoo xam ne boroom xam-xam yi yal na yàlla fayal ñu leen ñoo ñu jéem a firil baatu ñaan di baatu addua ngir bëgg mu gën ñoo jege waxoon naa la léegi ne ñaan ñaan la tudd woote woote la tudd boo ñëwoon ci wolof tey booy ñaan bokkut ak booy woo nit boo doon wax ay yow diw diw nga jaar ci tur woo woo ko daa am aw tur kon nga woo ko ca ñaan nag moom daa am looy sàkku ci moom may ma lay doon waaye ñaan ak woote daa mel ne ñaari day ànd ndax da woo ki ngay ñaan ba mu wuyu la nga ñaan ko li nga xam ne moom nga koy ñaan moo tax arraaxi bu day wax ne adduaa u lu nidaa yi nee na ñaan moo woote dañoo yem benn la mu ne lu dul ne woote dafay am yaa maanaam da ngay wax yaa diw yaa daawuda kooku da koy woo yaa aadamu da koy woo mooy yow diw wala hee diw woote boobu yaa da ciy am bu dee ci arab ak yeneen yu mel noonu ci baat yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci bu ñuy woote waaye bu fekkee ñaan la nag moom falaa yukaadu yuqaalu illaa ida kaana maahu ismu naxaw ñaan wa ñaan bu fekkente ne day am ab woote du ca am lu dul ne dafa fekk ne dafa ànd ak tur te tur wa ànd ak woote buñ ca war a woote loolu mooy li wutale ñaan ak woote bu ñëwee ci ñaan itam dañuy gis ne dafa am ay xaaj dafa am ay xaaj boo demee ci alquran laftu duaai wa daawa fi alquranil karim dañuy fekk yatanaawalu maanay ni muy loo xam ne dafa am ñaari déggin yoo xam ne moom lañ ci am moo tax ñaan ñaari xaaj la ñaari xaaj la ci baati ñaan yi ñaari xaaj la ci ñaan gi ba ca njëkk mooy du'aul ibadati mooy ñaan gi nga xam ne ak jaamu yàlla la danaa ci ñëw wax la mooy gan bu ñaareel bi mooy du'aul masalati mooy ñaan gi nga xam ne aajo la aajo maanaam talabu maa yanfau daa i wa talabu kaffi maa yadurruhu wa daf'uhu wa kullu man yamliku durra wa a fa innahu huwa almahbudu bi xaq ñaan ñaari xaaj la ñaan gi nga xam ne ki ñaan day ñaan mu nekk ak jaamu yàlla ak ñaan gi nga xamante ne day ñaan aajo am lu mu bëgg mu sori ko wala lu muy yóotu ba caa jot wala njàqare jum tegoo waaye ñaan yépp nag ñaan ci boppam mooy ak jaamu yàlla la danaa ci ñëw yépp ak jaamu yàlla la waaye ci waxin ak ciw déggin ñaari xeeti ñaani ni nga xam ne moo am moom lay jéem a séparer foofu ñaan gi nga xam ne ak jaamu lay doon fa huwa allati yatadammanu alshanaa ala allahi bima huwa ahluhu wa yakunu masxuuban bil war a jaa mooy ñaan gi nga xam ne jaam bi daa toog di kañ boroomam ak di ko bàkk waaye waxut yàlla may ma nàngam maanaam waxut yàlla may ma xéewal waxu ko may ma alal waxu ko teggil ma lor waaye mi ngi koy bakk di ko kañ di ko tudd ci turam yu màgg ya mi ngi ñaan moo ne li muy def noonu ak ñaan la waaye nag day mel ne koo xamante ne daana ci ak jaamu rek te mooy déggal gi nga xam ne moom lay déggal boroomam subhaanahu wa taala ci kàddu yi nga xam ne moom lay yëkkati moo tax boo ñëwee ci alquran wa duaau fi lqurani yuraadu bihi haada taaratan wa haada taara léeg mu ñëw fekk ne lii la ci jublu jamono ji muy wax te danaan la ñaan rek waaye wet gii da ciy kañ borom bi subxanahu wa taala ak di ko bàkk am geneen wet goo xamante ne ñaan la goo xam ne nit ki daa am lu mu yittewoo yad'u lin xi aw dafxi dur maanaam day woo day ñaan boromam subxanahu wa taala te fekk njariñ lay sàkku wala day ñaan ngir suñ borom teggil ko ay lor loolu mooy ñaan du'aawul mas'alati wa yad'u xawfan wa rajaan duaa al ibaada fa kullu duaai ibaadatin multazimun li duaa il masala dañuy wax ne ñaan moom ñaan yëpp ak jaamu yàlla la waaye am na ñaan goo xam ne dafa jagoon ak moom doon jaamu yàlla waaye nit ki di ko def ngir am lor ju muy dàqlu wala xéewal yu muy yootu boroom bi nee na ad'u rabbakum wala ud'u rabbakum tadarruan wa xufya innahu laa yuhibbul muhtadin borom bi ne ñaan leen ma woo leen ma foofu woo leen ma dégg ko woo leen ma ci bu ngeen amee lu ngeen di sàkku mu sori leen woo leen ma bu ngeen amee lu ngeen di tiit daan yàlla bëggut ñi nga xam ne dañuy jalgati mooy ñu ko fi bàyyi jàpp ne mën nañoo fajal seen bopp wala ñu ami pexe wala tufsidu fil ardi baada islaiha wad'uuhu xawfan wa tamaha inna rahmatallahi xaribun min al muxsinin beneen misaal borom bi danaan bu leen nekk ci suuf si doon ay sàmbaabuy di yàq suuf si na ngeen ma ñaan na ngeen ma woo foofu mooy ñaan ñaan leen ma ñaan leen ma bu ngeen amee lu ngeen di ragal ñaan leen ma bu ngeen tiitee ñaan leen ma te yaakaar ci ñaan gi mucc ca lay lore ñaan leen ma te yaakaar ci ñaan gi jot ca xéewal ya waaw mel ne dana jaamu leen ma ngir ragal sawara jaamu leen ma te góorgóorlu ci jaamu gi ngir xemmeem aljanna bu boobaa ñaan gi li muy tekki mooy ak jaamu lay doon bu fekkee lu nit ki di yootu masala lay doon mooy aajo la ñu am ci boromam subhaanahu wa taala di ko ñaan beneen exemple di beneen aaya borom mi subhaanahu wa taala day wax ne wa ida saalaka ibaadi anni fa inni xarib ujibu daawata daaci ida daani yàlla nee na bu la sama jaam yi laajee anama ñu la laajee ci man maanaam man fan laa nekk yàlla mooy wax loolu yonent bi yow yonent bi bu la bu la bu la jaam ñi laajee sama jaam ñi nag la ko wax ñi nga xam ne maa leen yilif man yàlla ibaad yi waxu ko sa jaam ñi buñ la laajee anama fan laa nekk fa inni xarib yàlla nee na jege naa waaye damay wuyu nag woote ku ma woo yàlla nee na ku ma woo ma wuyu la bu boobaa da gis ne fa innahu yatanawwalu wala yatanaawalu naway adduaai aydan wa bi kulli minhuma fusiratil aayatu maanaam da ngay gis ne ñaan gi ma la doon tàqaleel boo xoolee da ngay gis ne ñaan gi nit ki di jàng ngir e, faj ay aajoom jaamu yàlla la ñaan gi nit ki di jàng ngir kañ borom bi subhaanahu wa jaamu yàlla la ndax suñ borom woo leen ma la wax bu ngeen ma wooyee mu wuyu leen kon ñaan gi woote la waaye ñaan gi jaamu borom bi subhaanahu wa taala la wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum mhm. woo leen ma ma wuyu leen bu ko defee ci wàllu ñaan da ngay gis jaamu yàlla gi feeñ ci ndax yàlla ma ngay wax fenn ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ba duñ ma jaamu ñi nga xam ne dañuy rëy ba duñ ma jaamu te foofu duñ ma ñaan lañ koy tekkee duñ ma ñaan waaye foofu jaamu yàlla gi wala ñaan gi ak jaamu yàlla la ko bool la ko wooyee inna alladina yastakbiruuna an ibadati ñi nga xam ne dañuy ngande ngande lu ba jàpp ne man daal seen naataango laa wala am nañ ay pexe yuñ mën a def ba ma fi ba duñ ma kañ duñ ma bàkk duñ ma ñaan borom bi am na mbugal yu rëy yum ca teg yoo xam ne nee na moo leen di xaar kon ñaan ci genn wet day nekk ak jaamu yàlla gu wér goo xamante ne amut aajo yu ci rax wala leneen waaye jëmmi ñaan gi rek ak jaamu yàlla la Euh, boroom xam-xam yi dañuy tekki ñaan fustira duaau fil ayati bi hada wa bi hada dañuy tekki aaya ñaan léeg-léeg alquraan yi boo demee ci jeneen aaya joo xam ne saa boroom day wax ne inna alladina yadcuuna min duni illahi lan yaxluqu zubaaban walaw ijtamau yàlla nee na walaw ijtamau la li wane ne ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu bàyyi ma fi bañ maa ñaan bu ma leen jàppee duma leen nee na ñi nga xam ne dañuy woo ñeneen ñu dul yàlla xoolal fii mooy ñi nga xam ne dañuy woo ñeneen ñu yàlla maanaam ñi nga xam ne dañuy jaamu keneen ku yàlla fii waxut inna alladina yacbuduuna min dunillahi waaye yadacuuna min dunillahi la wax ñi nga xam ne dañuy ñaan keneen ku dul yàlla dañuy ñaan keneen ku yàlla kon boo déggee euh, dëgg-dëgg wax ji ba ca biir la nga cay déggee mooy dañuy jaamu keneen ku yàlla ñi nga xam ne dañ maa xeeb bàyyi ma fi bay jaamu keneen ku du man te fekk baatu ñaan la jëfandikoo dellul ci aaya ji ci kaw ji ma wax léegi inna alladina yastakbiruuna an ibadati yàlla waxut ñi nga xam ne dañoo rëy rëylu ba duñ ma ñaan dafa wax ne ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ba duñ ma jaamu aaya jeneen ji ñëw di ko firi ngir nga dégg li ma la waxoon léegi ne la an ibadati googu li muy tekki mooy duñ ma ñaan mu ne inna alladina na te taan ibadati yi kon li mu waroon a tekkil fii mooy bu na waaye na lazina yad'uuna yàlla ne ñi nga xam ne dañuy ñaan min dunillahi keneen ku yàlla maanaam dañuy woo keneen ku dul yàlla moom lañ def kilifa ba moom la ñuy ñaan bëgg mu dimbali leen yàlla nee na ñu defuñu fi tus binduñu sax aw weñ aw weñ sax mënuñ koo bind ñoom ñëpp buñ dajoo la woon mënuñoo créer weñ wuy naaw léegi nag kon fal muraadu bihi duaa duaa ul ibaadati al mutadamminu duaa al masalati nga xam ne kon eh, ñaan gi day nekk jaamu yàlla waaye ànd ak ñaan goo xamante ne day teggil nit ki ay loram la ci jublu wala xëcc ay njariñ fadu llaha muxlisiina lahu diin dégg nga foofu fadu llaha ñaan leen yàlla waaye fadu llaha jaamu leen yàlla muxlisiina lahu diin te déggalal ko diine ji ñaan mooy jaamu yàlla ku bëgg say ñaan nangu dangay nangoo jaamu yàlla moo tax fa haada huwa duaul ibada loolu mooy li ma la wax léegi ne la ñaan ci boppam mm, ak jaamu yàlla la abuduhu wa'dahu wa axlisu ibadatahu sellalal ko moom borom bi subhanahu wa taala wéetal ko ba muy kenn jaamu ko te wéetal ko waaye sellalal ko jaamu gi loolu mooy muxlisina lahu diin boo ñëwaatee da ngay gis jeneen aaya ju xawoon nurook moom te am aw déggin wu wuute xaw a wuuteeg ju njëkk ji Cheikh Fadel Ka ud'u shurakaakum fa daawuhum fa lam yastajibu lahum yàlla ne woo leen ñi ngeen ma doon bokkaaleel ñaan leen ñi ngeen ma bokkaaleel fi mu ne woote jëfandikoo te yàlla nee na yéen ñi nga xamante ne yéen a ma fi bàyyi woon am ñeneen ñu ngeen di jaamu ñu dut man jël leen teg ma ci seen kaw jël ñoo ñu jàppe leen ay yàlla tey bi mbugal mi ñëwee toskere gi ñëw woo leen woo leen leen woo leen leen woo leen leen yàlla nee na woo leen leen fa falam fa lam yastajibu lahum duñ leen wuyu waaw bu ngeen leen wooyit duñ leen wuyu te fii baatu ñaan la jëfandikoo ñaan leen woo leen mooy ñaan leen booy woo yàlla da ngeen an maa ngi koy ñaan mu ñëw mu xet li ma mu dimbali ma yàlla nee na gannaaw da ngeen ma fee bàyyi woon woo leen ñi ngeen ma doon wujjeen ñi ngeen defoon ñuy samay wujju bu ngeen leen wooyet duñ leen masa wuyu fa haada duaau lmasalati yubakkituhum allahu taala wa yuxdihim yowma alqiyaama bi an bi an yaraw an surakaahum laa yastajibuuna li daawatihim wa almuraadu ubuduhum kon woo leen leen leen leen ndax danañ leen wuyu li muy tekki mooy ñaan leen leen ba xam danañ leen mën a xeetli duñ leen mën a xeetli duñ leen mën a xeetli bu doon jaamu la ci jublu du jëfandikoo noonu ndax jaamu gi du ci teg ne kon ndax danañ leen wuyu baa bokkoon ndax danañ leen fay rek nga ciy dégge yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole aar yal nañu yàlla boole dafa jéggal allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika